ni lañu teeroo jëwriñ bi ñu dénk wàllum yoon foofee ca Fimela fatik ci dalal këri yoon bi nga xamante ni taxawal nañ ko foofee loolu moo tax ñu daje fi tey di leen delloo njukkal njëkkee ci man dem ci yéen man ni ministre bi ànd ak sama directeur yëpp ànd ak procureur yi ànd ak juge yi ñu fi jàppale leen parce que da ngeen ñoo jàppale ñu ubbi suñu maison de justice. maison de justice nag président Macky Sall def cee wax lu am solo defa ne xam ngeen ni cour suprême am na mooy attekaay bi gën a mag ci réew mi xam ngeen ni cour d'appel yi ñoo nga fu ne xam ngeen ni tribunal yaa nga fu ne mais nee na dafa bëgg justice bi fii sénégalais bi di yeewoo. fu muy daanelee ay dooleem fu muy amee ay jafe-jafe na fekk justice bi mu taxaw mu nekk ci wetam looloo indi justice de proximité moo tax lii ñu ubbi tey yéen waa Fimela yéen a ko moomal seen bopp. mu nekk jéego bu village de Fimela yàgg xaar. tey madame la ministre di inauguré trente et unième de justice Sénégal ni mu toll yëpp Fimela moo nekk trente et unième de justice. ma andi ko ci nag ak ay doomu commune bi ay doomu gox bi ay gor li Wolof di naan picc nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf c'est le moment de le dire devant tout le monde ba Fam moom ma njëkk a woo ne ma monsieur le maire que doo bind pour ñu am maison de justice wax sa mbaaxu morom walu yàq dara on a une mission régalienne et la réussite de notre mission ça interpelle tout le monde mais gunge mais dañ koy jàppale ci ay projet ma bind ministre bi à l'époque woo ma Ismaïla Madior Fall ñu discuter ci moom ay directeurs yi ci jàpp ñu ciy jàpp bile nekk fanweer ak benneel kër yoon fii ci réew mi bërëb yooyule jàppale nañu lu toll ci million doomi aadama biñ ko tegee ci atum 2006 euh, ba léegi moo tax lii ñu ubbi tey yéen waa Fimela ko moomal seen bopp maa ngi leen di ñaan man mii nag di seen jaam tey yéen ngeen nekk samay buur maa ngi leen di ñaan maison de justice bi donte mu ngi fii kenn xuloo bu fi kenn xeex mais it loolu bu fekkee ne mënu la ñàkk ngeen dem seen maison de justice di ngeen ko fekk seen médiateur mu toog procureur bi baa ngi koy tiim ngeen wax ko lan mooy seen soxla mu dugal leen lu baax mu wax ak leen lu sedd ngeen mën a juboo signé seen i kay ngeen génn jàmm ne ñooy si simla justice de proximité nekk li nga xamante ni ab dispositif euh, bi ñu indi ngir bépp sénégalais fu mu mënti nekk mën a gis boppam ci wàllum yoon